def ngi leen nuyu di leen de leen fàttali ne yéen a ngi seen canal Galsen Tube ci seen programme comment gagner de l'argent sur YouTube nu ngeen def bay gagner xaalis ci YouTube euh, di jégalu avant tout ci gëj a bi gëj dugal vidéo bi waaw du dara jàmm la woon. Euh, vidéo tey nag dañu ñëw ci interpellation yi nga xamante ni ñu bëri ci yéen def nañ ko euh, ñu bëri ci yéen am nay question yoo xam ne posé nañ ko moo xam ñu def ko ci commentaire yi ci suuf vidéo bi. vidéo yi moo xam ñu def ko euh, ay message envoyé ma ko ci whatsapp bi moo xam tamit am na ñoo xam dañ ma woo téléphone euh, directement lu ci mën am yooyu yëpp ñu dajale ko bi ñu ko dajalee daal gis nañu que synthétiser ko gis nañ euh, ëpp solo mooy ci monetisation bi la suñu bëri am jafe-jafe moo tax ñu bëri seen question foofu lay jëm parce que gis ñu bëri amuñu problème mu ubbi canal yi yu bëri ubbi nañ canal ñu bëri canal peut-être ñu am problème design dinañ leen wan euh, bannière yi nan ngeen di defaree seen propre bannière ak ay affaire outils yu simple dañ leen wan nan ngeen di defaree seen euh, logo ay outils yu simple dañ leen wan nan ngeen di defaree tamit euh, li nga xam ne mooy ay miniature parce que vidéo bi boo gisee bu ñu ko defee ci YouTube am nekk ci kaw ni wax bokkul ak vidéo bi mooy présenté nga def photo def ay bind xam ne ku lire dina am vidéo bi lan la loolu mooy miniature miniature bi ngeen koy defaree ak ni ngeen koy ci dugalee donte wanoon nañu ko mais dinañ ci gën a ñëw en détail parce que ñu bëri détails yi sew technique yooyu des fois dafay nekk lu fen di problème quoi moo tax di leen si ñëw euh, pour gën a ko leeral muy aspe design bi aspect aspect visuel wu canal bi pour canal bi mën a rafet mën a jekk mooy yére yi ko koy solo daal maanaam de manière voilà kii moo tax loolu daal léeg-léeg si ñëw mu gën a leer si si si si yéen incha allah rabbi li ci def lu ñu def lu ñu tardé lu dañuy dem directement ci ordinateur bi comme expliqué leen euh, monétisation en détail salaamaaleykum gars yi waaw comme niñ leen ko waxee sànq rek ñoo ngi ñëw léegi ci ordinateur bi pour gën leen indi lay euh, leeraay leeral en détail ci li nga xam ne moom mooy euh, activation monétisation bi léegi fii dañuy ñëw ci vidéo bi njëkkoon dugal mu ngi nii naka la ñuy activer monétisation YouTube comment activer la monétisation sur YouTube nga xam moom la njëkkoon dugal si nga mu ngi ci euh, Galsen Tube bi léegi si nga vidéo buñ ko playé gis nga ñoo ngi ñëwoon ci yi nga xam ni li ñu commencé woon fii mooy euh, yi nga xam ne affaire droit d'auteur yi pour ngeen respecté ko waaw nañ leen si gën a conseil rek mooy bu leen dugal vidéo bu ngeen moomul parce que vidéo bu ngeen moomul bu ngeen koy dugal comme ni ñu leen ko waxee fii lii c'est très important parce que da ngay liggéey liggéey liggéey liggéey ba sonn benn jour ñëw YouTube supprimer sa compte nga recommencer waat à zéro parce que xam nañ leen di wax parce que en connaissance de cause laa leen di wax dafa ma dal ay yoon canal yoo xamante ni demoon na bay générer lu bëri loo xam ni am na ay canal yoo xam ne ni doon na générer lu mat ay trois canal benn mu ne nag presque doon na générer lu mat ay soixante mille par weer mu jékki-jékki ay erreur téléchargement yu ma doon def ay vidéo yu nekkoon ci ordinateur ma koy euh, ma koy si YouTube bi dugalaale ci ay vidéo yoo xam ne waruma ko dafa nekkoon sama ordinateur ay vidéo émission te ay télé la woon nekk sama ordinateur par erreur ma téléchargé ko mais vidéo yooyu ñoo tax ñu supprimer sama sama compte yooyu moo tax en connaissance de cause laa leen di wax fexe leen ba lii ngeen respecté ko voilà bu leen dugal vidéo yu ngeen moomul bu leen dugal audio leen leen ko dugal seen canal YouTube ngeen moomul bu leen ko dugal seen canal yi ne moom moo gën a sérieux moom lañ a jël au mooy musique musique jàmbur boo ko dugalee pour ñu supprimer sa canal xem xefe xeppi wala nga dugal film musique ak film parce que yooyu euh, YouTube caaxaanu si quoi voilà lu ngeen lu ngeen di dugal seen canal da nekk loo xam yéen a defaral seen bopp voilà bu ko defee Soumaïla bi fii mu nekk fii lay reste bu ko defee bande bu vert bi gis nga bande bande verte bi mooy tekki kanaal bi respecté na yoon gis nga bande bi bu jëmee nii dafay orange bande bu ñëwee tegee fii ci Soumaïla bi dafay orange bu ñëwee tege fii moo xam fii moo xam fii dafay jaune su jógee foofu bu ñëwee tege fii dafay rouge automatiquement droit problème droit d'auteur wala programme règle de la communauté ngay am voilà amoon naan tànneur nag voilà comme ñu koy waxee léegi fii ampliat gis nga ñëw woon fii boo ñëwee ci monétisation comme li ma leen ko waxee woon rek da ngay euh, boo ñëwee fi fii ngay njëkk a ñëw euh, option avancée boo cliquer muy ni la ci tableau de bord bi bu fekkee monétisation activée kooku nii nga koy gisee fii ngay monétisation ñëw éligible mu def activé activé bii ngay cliquer voilà boo cliquer activé bi gis nga moo nekk nii en gros pour mu gën a leer waaw li nga bokk cliquer fii la lay indi léegi fii mu la indi nag gis nga comme ni ma leen ko waxee woon état du compte lañ lay indil monétisation non activer léegi nga war ko activer mu nekk quatre points 4 points lay nekk premier point bi. mooy nekk ni lire et accepter le règlement du programme partenaire YouTube moom ngay fii ngay koy cliquer démarrer nga suivre ko ba mu jeex boo seetaanee vidéo bi di nga gis niñ la ko expliquer léegi pour ma ñëw leen sa en boo ñëwee après nu muy mel boo ko defee pare fii ngay ñëw boo connecté woo ñëw comme maa ngi nii dugg naa YouTube daal dama comme da ngay tàpp ci baat bi directement mi ngi nii tàpp YouTube nga cliquer yaa ngi YouTube accueil bi nii bu fekkee connecté nga sa compte yi nga sa logo mooy feeñ fii. waaw loolu image bi nga dugaloon mooy feeñ fii fii dama dugal benn image mu doon mu mel nii mais image bi nga dugal mooy feeñ fii parce que compte illustration la quoi léegi nga cliquer ci fii nga wàcc ci suuf ba fii yaa ngi koy gis ni paramètre nga cliquer boo cliquer paramètre fii la lay indil bu leen indilee fii nga wàcc ba fii nga xool votre compte votre compte lii cliquable ci suuf mooñ ci intéressé muy afficher les fonctionnalités supplémentaires maanaam yeneen yeneen yenn yeneen mbir yoo xam ne moom nga bëgg a def ci YouTube te nekkul fii fii ngay fii ngay dem pour dem foofu afficher les fonctionnalités supplémentaires nga cliquer fii boo cliquer gis nga mu ubbeeku mooy comme fi ñu leen doon woon fële ci ci canal bi fi ñu leen doon woon sànq fii fii nii voilà moo nekk nii gis nga monétisation baa ngi nii xam nga buton bi nekk bi nekk fële gis nga fii activer la la def parce que activer goo monétisation mais boo cliquer pour activer monétisation après daf lay indil fii nii gis nga ni mel léegi bouton activer bi ji nga dootu après defar état monétisation désactivé parce que activer guñ ko gis nga comme fii ni lay defar streaming xam nga amu ci droit parce que canal bi il faut am yu bëri pour mu mu mu kii ko mu egg fa pour mën a am streaming ah streaming ngay def en direct quoi. léegi gis nga su ñëwee fii fam ñoom bu ñëwee fii nag dañu am dañuy am problème parce que boo leen nee cliquer euh, ci euh, état kii paramètre avancé des fois du ñu gis paramètre avancé parce que YouTube dafa am ay changement yu mu def yu mu yu mu commencé di def mooy version YouTube studio bi lay lay lay testé moo tax léegi taw YouTube est normal bi ak studio bi da ko mélangé des fois da ngay dugg fi mu indi la si studio bi des fois nga cliquer moo tax en attendant studio bi daal la ñuy bu demee ba kii après moom mooy continuer beneen beneen beneen version bi dañ koy éliminer gis nga moo tax mu defal la fii quand vous aurez fini d'utiliser cette fonctionnalité cliquez sur revenir à YouTube Studio parce que boo demee YouTube Studio léegi fi ngay ñëw nga def revenir à YouTube Studio parce que YouTube Studio bi si kanam tuuti moom mooy continuer quoi parce que daa nekk phase test mais phase test bi bu jàllee après mooy continuer jë nga boo ñëwee YouTube studio yi nga boo doon télécharger vidéo dugal vidéo upload de vidéo fii ngay ñëw nga def mettre en ligne boo cliquer fii automatiquement mu dem ci sa ordinateur wala ci sa euh, kii euh, paramètre téléphone pour nga dugal vidéo bi nga bëgg a uploader wala nga ñëw fii vidéo bi ñu def signe plus bi même chose la fii nga cliquer nga cliquer fii ñoo yem voilà léegi fii ngay ñëw yaa ngi si léegi YouTube studio mu ngi nii boo xoolee fii ñu defal la beta parce que bêta bi mooy tekki version test la nekk quoi pare euh, defaguñ ko nekkul version définitive de euh, version définitive bu buñ ci paree nag ba nga xam ne gis nañ ni mel na ni mu war a mel ni ñu ko bëggee nit ñi maîtriser nañ ko euh, version précédente bi dañ koy supprimer version studio bi moom mooy continuer léegi da ngay wàcc yaa ngi ci YouTube studio nga wàcc <clears throat> nga ñëw ba fii autre fonctionnalité gis nga boo tegee autre fonctionnalité rek comme dafa am flèche ji nga soxla sa nga koy cliquer gis nga xaa mu génnaat boo ñëwee ci kaw ngay di wàcc wàcc wàcc wàcc bu autre fonction fonctionnalité nga arrêté foofu am na benn liste bu génn à droite nii nga sa ñëw dugg fii ci liste bi liste bi muy playlist événement en direct lancer une division en direct traduction et transcription monétisation état état et fonctionnalité bibliothèque audio personnaliser la chaîne euh, carte de densité des vidéos de RV yu mais la ci intéressé mooy fii sa vidéo tay bi lii moo tax a jóg monétisation nga clique fii ci monétisation voilà boo cliquer monétisation gis nga fii la lay indi parce que ñu ñëw ci vidéo bee woon leen bi ñu njëkkoon dugal voilà mi ngi nii gisoo monétisation mu defal la état du compte monétisation non activée xam nga mu defal la par ay numéro un de trois ba quatre la léegi fii ngay ñëw ci démarrer voilà mu ngi nii boo cliquer démarrer ba pare xam nga yaa ngi woon ci un bi fii la nekkoon boo cliquer démarrer ba nga accepter condition yi day daal di verte mu defal la demander l'activation de la monétisation mu def condition d'utilisation du programme partenaire YouTube accepté voilà buñ ko accepté ba pare def bu mu verte mel nii léegi yi si des nag du léegi mi ngi nii nga ñëw fii mu defal la s'inscrire à AdSense voilà mu ngi nii waaw mais vidéo bi nag foog nga seetaan ko pour mën a comprendre la ma lay expliquer fële ci nga comme li ma loon sànq démarrer boo defee automatiquement gis nga nga lire euh, conditions yi après nga wàcc nga def accepter voilà gis nga voilà voilà léegi ji bi verte na activé na ko léegi deuxième bi day ñëw muy s'inscrire à AdSense nga def démarrer boo cliquer s'inscrire en search nga def démarrer gis nga mooy deuxième point bi demander euh, demande d'inscription à AdSense envoyé léegi boo ko defee pare lay mel nii nag boo ko defagul fii dafay rouge parce que par benn la bu rouge rek nga def ko bu rouge nga def ko mu verte léegi boo cliquer <laughs> demande AdSense envoyé daf lay envoyé automatiquement ci paramètre AdSense léegi pour nga pour nga pour nga relier sa compte par exemple mi ngi nii compte AdSense associé gis nga mu la compte baa ngi nii le compte AdSense suivant est actuellement associé id numéro compte bi mu nekk ni état bi ak compte bi le compte actif date d'association le 22 mai 2019 à 5h20 si vous souhaitez mettre à jour votre compte AdSense cliquez sur le bouton modifier ci-dessous pour être dirigé vers Google AdSense une fois la mise à jour effectuée vous serez redirigé vers YouTube su fekkee da nga bëgg a changer compte AdSense bi nga def nga bëgg a def beneen compte AdSense da ngay cliquer ci modifier boo cliquer modifier nga mën a changer dugal beneen compte après boobu dinañ ko metre à jour mu remplacer bi nga xam ne moo fi nekkoon voilà moo def retour gis nga léegi su fekkee paramètre AdSense nga bëgg a dem kii fii ngay cliquer mu yóbbu la directement ci compte AdSense bi mu dee daam loo fa bëgg a nga mun koo paramétrer voilà parce que compte AdSense bi li gën mooy soo ko béy ci YouTube automatiquement mooy ubbi boppam moo gën nga dem ubbi compte AdSense à part gis nga compte AdSense baa ngi nii mais comme bi compte AdSense bu bees tàq la euh, parce que dañ ko créer uniquement pour euh, compte YouTube bi nga xam ne pour expliquer pour jàngale bi la moo tax di nga su fekkoon ni euh, compte YouTube bu commencé gagné xaalis dangay ngay xaalis bi dafay apparaître fii quoi li ngay gañee tey tey tey ñaata nga dugal ko fii lay affiché. démb li nga gagné fii lay affiché ci semaine bi li nga gagné fii lay affiché weer bi li nga am fii lay affiché solde total sa compte li fi nekk te retiré wu ko fii lay fii lay voilà léegi si biir compte AdSense bi AdSense nag du pour YouTube kase YouTube euh, kase tax koo jóg AdSense bi moo fi ji moo jiitu moo jiitu moo jiitu sax boobu moo YouTube voilà parce que AdSense pour defar ay annonce la fi nekk na lu yàgg ñu koy dafay annonce ay site internet bu la ko ma YouTube YouTube di ñëw di nga fii annonce la waaw léegi fi ngay fi ngay euh, defar ay annonce ak yooyu mais lii après dinañ si ñëw boo nee ba am blog wala nga am site internet nan ngay créer ay publicité fii defar sa ay publicité bopp euh, blog d'annonce yi gis nga nan ngay créer ay blog d'annonce fii après dugal ko ci sa YouTube copier nu mu tëti euh, kii bi java code javascript bi copier ko dem comme muy mel publicité yi nii lay mel publicité yi mel nii nan nga koy defaree copier code yi insérer ko ci sa ci sa kii ci sa site internet yooyu yëpp après dañ si ñëw voilà gis nga fii paiement gis nga xam nga affiché euh, xaaral tuuti waaw ji nga affiché affiché di nga lim la affiché vous avez atteint zéro pour cent de votre seuil de paiement seuil de paiement ji nga soixante-dix euros la boo yeggee soixante-dix euros xaalis bi ñoom dootuñu ko mën téye fii il faut dañ la koy verser sa compte banque mais si yow lay dépendre da fekk nga dugal compte banque boo xam automatiquement dañ la koy verser automatiquement ci sa sa compte banque waaw transaction yi ji nga weer bee passé bi stop bi stop par fii lay affiché ba at bi jeex weer bu ne li nga gagné boo demee ba commencé gagné vous n'avez pas besoin de configurer de mode de paiement tant que vous n'avez pas atteint paiement aji nga fii ak amoo lu ëpp soixante-dix euros jarul nga fiy nekk di dugal ay compte banque yooyu parce que de toute façon xaalis moom mu munul boo fi amoon dix euros vingt euros trente quarante tamit du génn fii lay toog di xaar bu matee soixante-dix euros daal nga ci nga koy soo ko mun récupérer parce que ñoom duñ def ay yoo xam ne moyen de soixante lii nii boo boo jegee soixante di euros rek gañu lopp soixante di euros rek à peu près soixante-dix euros ay peut-être ay quarante quarante-cinq mille la à peu près je crois waaw léegi fii ajouter un mode de paiement day daal di actif xam nga fi ne nii nga boo cliquer du dem su boo ko cliquer fi ne du dem mais boo payé soixante-dix euros rek day cliquer boo cliquer rek da wax nga dugal sa numéro compte voilà gis nga information la ci compte bi paramètres yi information sur le compte Euh, paramètre personnels accès et autorisation gis nga information ci compte bi la quoi voilà numéro compte bi ak numéro client ak fuseau horaire bi xam nga Dakar la defoon AdSense pour les pages de contenu AdSense pour les pages de contenu YouTube host dégg nga loolu noonu la fa demee voilà léegi boobu mooy li concerné compte AdSense bi léegi compte AdSense bi jeexee préférence de monétisation nga ñëw nga def vidéo sama vidéo yëpp laa bëgg monétiser voilà. loolu tam après boo cliquer fii mooy bi fi ma leen waxoon fii voilà moo nekk nii définir les préférences de modélisation voilà ñu nga fii AdSense bi boo ko activer fii ngay ñëw vidéo bi il faut ngeen seetaan ko baa ngeen seetaan bi bi bi bi ma bi ma leen di expliquer parce mooy tax yu bari ngeen comprendre ko voilà ngook gis nga dem nga xam nga boo féet bi féet bii mel na gis nga léegi mel na comme fu ma loon expliqué gis nga associé na ko mais boo ngeen ko seetaanee association bi yëpp di ngeen xam ni ñu koy defee ci nga mu def nii définir les paramètres de monétisation gis nga boo ko cliqué fii la lay indi wan la façon publicité yi am gis nga voilà façon publicité yi am yëpp la lay wan léegi nga coché yëpp ngay yëpp par par défaut dañuy coché yëpp ñoom yow nag bu fekkee na façon publicité yoo bëggul mel vidéo yi nekk sa chaîne yëpp ngay monétiser voilà après nga def enregistrer boo defee enregistrer gis nga après mu indi la fii waaw ah, vidéo bi moom dama ko définir di ko dama ko pose ba pare di ko avancer pour ngeen di gis rek loolu la mais mi ngi ci chaîne bi moo ngi nii moo ngi tudd naka la ñuy activer monetisation YouTube mi ngi ci biir chaîne bi même soo tàppee lii directement sans mu am faute nga tàppe directement bi ma bind fii teg teg vidéo bi dina ñëw si barre de recherche bu bu YouTube soo bee sa YouTube rek nga xool bind bi nga def naka la ñuy activer monétisation YouTube sans mu am benn faute mu gën def ko teg teg ni ma ko defee nii dina ubbeeku voilà léegi gis nga ñoo ngi ñëw ci quatrième point bi quatrième point bi nag moom du mën a gum parce que nekkul loo xam da ngay cliquer cliquer accepter mu verte non non parce que fi condition yi fii la ko YouTube tegalee mooy il faut nga am euh, mën nañ ñëw fii pour mu gën a leer waaw mi ngi nii. chaîne soumise à examen lorsqu'elle atteint 4000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois et 1000 abonnés waa il faut nga am 4000 heures de visionnage maanaam euh, ñeenti junni heure ñeenti junni waxtu yoo xam ni liñ seetaan sa vidéo yëpp ci at mi boo ko dajalee mën na ñeenti ñeenti junni waxtu waaw te abonné yi nekk sa canal mat junni personnes yoo xam ne abonné nañ war nañ ni canal bi intéressé na leen su booba dañ lay defal fii point verte fii point verte wan la ni bravo félicitation sa chaîne bi euh, nekk na ci programme AdSense activé nañ ko jeex na sa vidéo yi nga dugal yëpp léegi ku seetaan publicité bu ñu am léegi dañ lay commencé fay mu jeex voilà bul defee nag da ngay lii fen 4000 heures nga aw 4000 heures moom nangam déedéet 4000 heures losi na lii lii lii li ngay bul ko 4000 heures yi bu mu la intéressé yow voilà yow li lay intéressé dëgg dëgg dëgg fi fi kii bi nekk truc bi nekk mooy 1000 abonnés fexeel defal la tout sa chaîne bi nga koy partager di ci def ay vidéo yu am solo di ko expliquer nit ñi pour nga am mille abonnés yoo xam ne ay abonnés normal ay du ay abonnés fictif abone yoo xamante ni maanaam ay échange d'abonnés la dangay ngay dem abonné ci ay chaîne ñu abonné sa chaîne ñoo xam ne sa chaîne intéressé wu leen boo dugalee vidéo sax duñ ko seetaan mën nga am 1000 abonnés nga dugal vidéo vidéo bi def fa un mois am zéro vue kenn du ko seetaan parce que abonné yooyu dañ ay échange la rek intéressé wu leen wala nga dem ci site yoo xam dañ naan la nga am 10 000 abonnés en 48 heures en un mois 1000 abonnés euh, si 24 heures yëpp am na waaw am na ay temps ne woon naa dinaa leen woon site yi koy def mais finalement damay bañ tentation bi tax <laughs> ñenn si yéen xam nga dem di si jéem a kii moo tax moo tax après mooy hésité ba xam sax jar na mooy ma lay ma lay koy expliquer yenn site ñoo koy def voilà mais daal am na en tout cas am na parce que boo wëree ci internet di nga ko gis voilà léegi euh, yooyu boo ko jëndee tamit ay abonné yoo xam li si ay par exemple ni ma leen ko mën a expliquer mooy day am benn chinois boo xam ne dafay toog Chine yor ordinateur am moom si njaayum abonné yooyu lay yëngatu day ubbi lu mat 500 wala 1000 wala 2000 comptes YouTube yoo xam ne benn bokk seeg sa morom mais yëpp même personne bi moom moo koy gérer. léegi su fekkee nag moom lay def ci internet ne man damay jaay 1000 abonnés en 24 heures ñaata laa koy jaay mun la moom fay rek cinq euros wala cinq dollars ay 2500 3000 voilà 3000 francs xam nga yow nga ne 1000 abonnés man ko ci 24 heures 3000 nga daal fay sa 5 euros wala sa 5 dollars mu jël kanalam yooyu yëpp ñu abonné ñoom ñëpp ci sa chaîne bi xam nga am nga 1000 abonnés mais 1000 abonnés YouTube après bu xoolee day gis ni ay abonnés yoo xam ne yenul maanaa parce que euh, nit ñi abonné ndoo te mu gis amu ci benn abone boo xam ne day day cliquer say vidéo di ko seetaan bu boobaa da léegi da ngay indi sa chaîne bi ay jafe-jafe ñoom buñ ko xoolee duñu euh, système bi robotisation bi ñu def day détecté yooyu automatiquement mais yow kooku moom loolu lay liggéey chaque jour dina am benn wala ñaar wala ñett wala ñeent wala juróomi nit wala fukki nit yu mu jaay chaque jour mën nay gagné cinquante euros par par par jour à peu mën nay gagné à peu près mille francs par jour trente mille francs par jour boo demee euh, nu mu tëddi euh, weer bi xaalis la xam nga ki am na dafa yor ordinateur mille compte am yu bokkul mis mille compte Facebook wala YouTube wala yooyu di jaay abonnement business la boo xam ne moo tax am yoo xam ne dañ ciy nekk loolu dong la ñuy liggéey. mais yow mi nga xam da soxla nag loo xam ni dafay pérenne maanaam loo xam da nga koy commencé mu sérieux dem long terme nga xam ne boo demee ba am ay 1000 2000 3000 4000 10000 20000 abonnés 50000 ba 100000 abonnés say vidéo même boo def boo toogoon defatoo vidéo sax say vidéo yi day am solo am solo goo xam ni yeneen génération yi ñëw dañ koy xool mu am njëriñ si mën a jàng yow nga toog moom defatoo dara ci canal bi mais canal bi day continuer di leen di xaas lu boobaa il nga def affaire yi sérieusement def vidéo yu leer bàyyi gars yi ñu parce que ñi abonné naturellement gis ni sa chaîne da leen amal solo ñooñu vidéo boo dugal dañ koy cliquer seetaan ko comme nag am nga 1000 abonnés yu normal parce que fexe nga bu ut 1000 abonnés yoo xam normal ay nit normal ñoo abonné sa parce que da leen a neex 1000 yooyu sooy dugal ay vidéo ñu koy seetaan ba ren di day ëpp 4000 heures de visionnage foofu la secret bi nekk mooy 1000 abonnés yi mooy affaire bi mais du 4000 heures parce que ñoom li tax ñu def 4000 heures de visionnage dañoo xam ni si dañoo def ay ay statistiques ba xam ni. képp ku am 1000 abonné yoo xam ne ay nit ñu abonné normal lañ si un an da ngay am 4000 heures de visionnage mais bu dee 1000 abonné yoo xam ne da nga ko jënd loolu du mun nekk parce que abonné boo dugalee vidéo benn nit boobu jaay la 1000 abonné du ñëw jël ko connecté 1000 comptes yëpp di seetaan say vidéo voilà loolu nga xamee ko noonu moo tax ma insister ci arrêté ci pour bu leer sa bopp quoi voilà affaire bi daal noonu la demee léegi bu dem bu bu boo mate daal 1000 abonné yu normal 4000 heures yi moom incha allah da nga koy am ko defee nag léegi sa compte. ñu ñu approuvé ko léegi nga bokk ci monétisation bi léegi mu des nag léegi ngay dugal vidéo yi am solo yu am njëriñ vidéo bañ a nekk mu mel ni vidéo nekk ci internet bi di xasanteeg saagante ak di boot di konteeg di kenn ku ne di tuutal sa morom di yëkkati sa bopp yooyu moom xam vraiment amul njëriñ waaw li ma leen ñaan daal képp koo xam da ngay seetaan samay vidéo nga bëgg ci inspiré wu pour def ay vidéo ci YouTube maa ngi lay ñaan na ngay dugal vidéo yoo xam ni lu amal yow sa bopp mu amal la njëriñ la amal ñi lay seetaan njëriñ amal réew mi njëriñ amal génération future yi ñëw nga am ne sa vidéo yi mën na des si internet bi ñu koy seetaan génération yi bu ñëwee bu ko xoolee ñu jàng si dara voilà il est temps que nit ñi xam ne saagante yi xastante yi xeebante yi ku nekk di yëkkati sa bopp di wàccee kaneen yooyu du ñu jëmee fenn trois au mire kese la ñuy jëmee voilà amul benn njëriñ mais malheureusement nag euh, internet bi ñu si nekk dafa mel ni dañoo bànd seen bët yi dafa mel daal duñu utiliser seen cerveau yi pour xalaat quoi waaw désolé mais c'est loolu lay nuru quoi waaw parce que nekk ci internet lu toll li internet yow nga xam ni sa ay maam amuñu woon possibilité am ko yow yàlla def nga tombeek lu toll ni internet nga am sa kër ngay toog sa connexion sa téléphone sa ordinateur lépp lu xew ci àdduna nga mën ko xam bépp livre bu am ci àdduna nga mën ko dem xool fi mu nekk mën ko télécharger mën ko liir li nekk ci xam-xam ci àdduna bi yépp nga am si accès ci sa benn ordinateur ak sa tablette kese boo boo yor ak sa téléphone yow loolu nga war a concentré wu ci di ut information ci di partager information ci di xool looy véhiculer lu baax di xool lu baax fu mu nekk nga jëm ko jàng mais nga jël sa temps nekk ci internet bi di saagante di gënalante xam nga loolu man daal léeg-léeg man daal damay xalaat xalaat du ma xam sénégal yi daal seen bopp yi daal lan moo si nekk man moo ko comprendre daal voilà. parce que yaakaar naa daal suñu mentalité waroon na passé nit ku bu fekkee na nga dëkk ci continent boo xam ne moo gën a tardé si continent yi. Eh, nga dëkk ci réew yi nga xam ne ñoo gën a arriéré dem euh, économiquement ci réew yi waroon nañ tal leen ñun sénégalais yi lu nekk ci internet bi di xasante ak di saagante voilà je crois daal loolu benn kii mu leen bàyyiloo xel la ci yëpp yi nga xam da ngeen seetaan samay vidéo ngeen bàyyi xel loolu fexe leen bu buñ leen buñ leen buñ leen euh, détourner seen objectif ay nit bu ngeen amee objectif ci internet bu leen kenn détourner objectif bu leen kenn distraire parce que distraction mooy nga am objectif fixé ci jëm ci am ku lay coqataan ci côté bi fexe ba nga bàyyi sa objectif nekk di lijjanti di lijjanti coqataan mu leen coqataan voilà distraction moom bu leen ko nangu parce que distraction day perte loo nit temps concentré wala ci seen objectif di def vidéo yu baax yu am njëriñ ci loo xam ne yaakaar ngeen dina leen jëmale kanam yéen seen bopp jëmale ñi leen di seetaan kanam jëmale dëkk bi kanam loolu daal di crois moo ëpp njëriñ quoi vidéo bi nag fii lañ koy yemale comme je crois affaire monétisation bi daal euh, explication yi ñu ci doon indiwaat j'espère que dina am ñu mu ñu mu si jëriñ euh, di la ñaan tamit su fekkee vidéo bi jàpp nga ni am na njëriñ euh, comme d'habitude rek nga partager ko ci réseau sociaux yi te bañ ko négliger bul xeeb parce que partage boobu ngay def comme ni nga demee ba un jour nga daj si benn vidéo moo xam bii moo xam baneen boo xam ne am na solo parce que daa am ko ko partagé yow tam vidéo boo seetaan ci internet nga si daa am solo danga nga koy partagé pour ñeneen mën si jot pour euh, message bi di mën a tas quoi parce que objectif bi loolu la quoi voilà apporter la bonne nouvelle ba pare tas ko loolu je crois mooy objectif bi moo tax maa ngi lay ñaan bu fekkee jàpp nga ne vidéo bi am na solo maa ngi lay nga partagé ko ci réseaux sociaux yi nga xam ni nekk nga si dina la ñaan tam su fekkee amoon nañ ko da nga daj ci vidéo bi te nekkoo ku abonné ci canal bi ma ngi lay ñaan nga cliquer ci bouton bu xonk bi nekk suuf vidéo bi ñu def euh, abonnement waaw léegi vidéo fii lañ koy yemale bii di ñëw nag dinañ leen dugal ci logiciel yi nga xamante ni expliquer leen logiciel bi bi ñu xam ne moom la ñuy filmer écran téléphone ak bi ñuy filmer écran ordinateur nii voilà xamoon euh, la voilà logiciel bi moom laay filmer écran ordinateur voilà moo ngi tudd ni soo baa ngi nii Ops Studio voilà bi version quatre point 0 point 1 bi la voilà moom lay filmer écran parce que li tax parce que am naa beneen beneen logiciel bii Camtasia anam ah sax mi ngi nii Camtasia bii ngay gis nii mën naa ci filmer euh, écran mais Camtasia bi euh, Ops bi da ko gën a oyof Ops mën nga filmer te sa ordinateur du planté wu du def dara quoi dafa oyof parce que moom pour filmer kese la. mais Camtasia bi en même temps dafay filmer écran en même temps dafay def montage comme vidéo yi bind yi ngeen gis ma ci def ak ay images yi ngeen di gis mu ciy génn illustration yi euh, logiciel bi laa koy defee Camtasia voilà logiciel bu bu am doole la moom laa koy defee. léegi beneen boo xam dama koy utiliser tam xam naa naa la vidéo bi ñëw logiciel yi laa leen di présenter yi nga xam xamante moom laay utiliser pour defar ko euh, hand handbrake moom logiciel la boo xam ni comme léegi connexion yi des fois day xaw a faible. soo amee benn vidéo vidéo par exemple taille bi nekk 1 giga mën nga ko si dugal mu réduire ko def ko par exemple 0,5 giga te te te qualité image bi du du du du deñ nga day nekk même qualité leeraay mais diisaayu vidéo bi la lay la lay dindil quoi léegi ba nga xam ne vidéo bi soo ko doon télécharge mu war a jël une heure temps léegi 30 minutes su waroon jël 10 minutes 5 minutes lay jël exemple waaw loolu la Audacity tam pour enregistrement audio boo fekkee da def montage yom na nga bu leer Audacity ci benn euh, moom tam logiciel la boo xam ne pour audio pour audio la moom tam euh, c'est gratuit quoi logiciel bu gratuit la. Euh, bi ma xam ne moom laa filmé nii li ngeen di seetaan nii logiciel bi moom moo ko filmé muy écran bi muy Ops Studio waaw Ops Studio bi logo bi moom moo nekk nii ci suuf voilà gis nga. boo ko taalee fii ngay ñëw nga cliquer euh, enregistrement mu commencé enregistrer soo bëggee arrêter fii ngay cliquer arrêter l'enregistrement mu arrêter su fekkee da nga bëgg a dem ba yaa nga pause am loo bëgg a def ñëwaat eggali au lieu ngay dagg enregistrement bi fii ngay cliquer pause nga pause voilà fii ngay cliquer paramètre gis nga pour ñëw paramètre ko sortie bi vidéo bi fan nga bëgg muy dem euh, audio bi ban micro nga ko bëgg enregistrer gis nga mu ngi nii format vidéo bi ak yooyu quoi fi nga koy defee voilà. léegi fii soo soo soo soo cliquer fii enregistrer ba pare dangay ñëw fii nga réduire ko léegi sa écran di feeñ nag léegi ngay ngay ubbi yaa xam waaw YouTube bi léegi te du te li nga bëgg a enregistrer la lay enregistrer voilà moo ngi nii nii la nii la demee ko waaw mais bii di ñëw vidéo bi ñëw mën naa leen expliquer daal ops bii laa leen présenté Audacity and break ak euh, Camtasia voilà. après léegi su ma jugee ci yi ak ak logiciel bi nga xamante ni moom laa utiliser pour filmer écran téléphone bi tamit waaw parce que léegi am na vidéo yoo xam ne nga téléphone bi laa pour def ko logiciel bi koy filmer tamit dinaa leen ko wan si si téléphone incha allah. waaw gars yi ginnaaw ba nga xam ne seetaan ngeen bi j'espère que di ngeen ci kontaan euh, ma leen di demander rek ñi nga xam ne abonné ba ñu ñu cliquer ci bouton bu bi nekk suuf vidéo bi vidéo bi def s'abonner soo cliquer ba pare am na benn cloche bu ndaw buy buy feeñ nga cliquer waat mooy tax vidéo yi ñuy dugal. automatiquement YouTube daf lay yëgal heure bu ñu dugalee vidéo bees YouTube YouTube dala koy yëgal sans nga ñëw ci canal di xool na bees bu bees bu dugg YouTube dala koy yëgal automatiquement mooy tudd cross de notification euh, ñi nga xam ne tam euh, jàpp nañu vidéo bi am na solo am na seen xarit yoo xam ne bëgg ngeen ñu jot ko mun ngeen ko partager seen ay amis ci WhatsApp bi mun ngeen ko partager tamit ci Facebook mun ngeen ko partager tamit ci Twitter waaw parce que loolu day tax plus de personnes jot si mu gën a ëpp nit ñoo xam Euh, kon ñu ngi leen di jox daje ba fan yi néew ci beneen vidéo ci comment gagner de l'argent sur YouTube ci seen canal Galsen Tube asalaamaaleykum